لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين كن غناو بنو سنتي الله سبحانه وتعالى جلي وات تي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غا خامي ني موم نين كاي واخي سا سوني yàlla daf ko xooloon ba mu sob ko mu ni ko wa allamaka ma lam takun taalam ndax wa kaana fadlullahi alayka azima yàlla dafa xool seyduna muhammad ba yàgg mu ni ko man day maa la xamal loo xamante ni xamoo ko woon kon na nga xam ni sama ngëneel day lu màgg la ci yow kon ñu ngi ñaan saa ne rek yàlla nu yàlla dimbali nangul nu bépp julli gu nu julli ci moom waaye nanu ko nangul ci démbam ak ci tayam mu mel ni ñu ngi nuyu mbooleem jullit yépp waaye di jëkke nuyoo bi ci sunu xalifa seydi muhammadul maxtaar ibnu seydina manjoon di ko yan bii nga xamante ni yàlla moo la teg ci kawam yàlla na ko yàlla oyofal ba fa mu bëgg jëme diine maamam ji yàlla na ko fa yàlla eggale mottali ko dimbali ko bu ko defee ahlulaahi yëpp am ndam noonu la ñuy nuyoo képp koo nga xamante ni yaa ngi ci biir ahlu bayti seydina limaam alayhi salaatu wassalaam di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal lépp loo xamante ni yaa ngi koy sumb yàlla na yàlla subhaanahu wa taala def ko muy muy euh, barke ak xéwal waaye mu mel nii dañuy tàmbali rek ci gàttal ndax temps bi dafa xat di rogalaatal nuyoo bi ba tey ci xamante ni ñoom ñoo fi toog jëmmal li nga xamante ni moom mooy sunu jotaay bi muy ay kilifa yoo xamante ni yu ñu ràññee la ci diine mu mel ni sunu baay Amar mu ngi ñëw léegi ndax imaam a ngi noonu aussi di dugg si e, am taxawaay bu rafet ci jumaa yi ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay ñoom ñëpp waaye buñ ca jógee ñu ngi nuyu ustaas yi nga xamante ni ñoom ñoo war a taxawe jotaay bi ñuy ay kilifa yu mag yoo xamante ni yàgg na noo bégal jaam yàlla yi ci mbirum diine rawatina li nga xamante ni moom mooy panel bi nga xamante ni ñu ngi ko tijji di ci profité du nuyoo waale ka nga xamante ni moom mooy Bas Dengal ma nekk ca États-Unis d'Amérique initiation bi jóge woon ci moom kon ñu ngi koy ñaanal yàlla moom aussi yàlla na ko yàlla dimbali fa mu ne bu ko defee nga gis ustaas yooyu taxawaay bi nu amoon ci diine bi bégal soppe yi ci biir fi nga xamante ni moom mooy panel bi kon ñooñu aussi amel nañ leen jukkal moo tax war na bi nga xamante ni organiser nañ lu mel nii muy première édition ñu fas yéene ko tàmbali tey ñaan yàlla subhanahu wa taala mu eggaleel nu ko danoo dajale ñi nga xamante ni ñoom ñooy yi nga xamante ñoo nekk ci groupe bi ngir rek ñoom ñëpp ñu mën a ci bisu tey bi mën a gën ndax bari waa na si ñoo ñu ngi doon sax ci groupe bi man woon donc lii dafa nekk occasion ci tey ñu mën a gisante gën a mën a saafonte suñu biir niki noonu aussi noonu la ñuy saafonte ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy membre yi nga xamante ni ñoo nekk ci groupe mu mel nii ci góor ña ak ci jigéen ñi ñoom ñëpp ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay ndax taxawaay bi rafet na ndax lépp liñ ci nam rek moom mooy bëgg diine moom moo leen tax a jóg moo tax ñu ñëw di ko taataan ci foofu nga xamante ni moom mooy panel boobu di jàmmalay am New York donc ñu ngi jox ku nekk wàccuwaayam Seydina euh, Ibrahim ñu ngi koy jox moom te nijaay ñu ngi koy jox wàccuwaayam bu baax di ko jox cëram ndax gis nañ ni nga xamante ni moom la taxawee ci biir diine ji noonu la nu koy joxee képp koo nga xamante ni yaa ngi fi Seyd Ibrahim ah eh, Omar Lay ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax kulim rek da ngay waaye mu mel ni dafa am thème yu nu tënk thème yoo nga xamante ni danoo jóg rek ngir laayante ci biir ndax Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam bi muy wax da ngay dafa ni na ngeen xam ni diine day naayante biir waaye ci laaye biir boobu dañuy fàttalante maanaam ñu jël ko def ko muy hommage ci ka nga xamante ni moom doon suñu xalifa di seydi abdoulahi ñu ngi koy ñaanal subhanahu wa taala yàlla na yàlla yokki leeram fa mu nekk ndax itam nekkoon na koo nga xamante ni taaru diine ji la woon doonoon borom xam-xam bu mag bokkoon ci aarif billah waaye nag bokkoon ci rajulan nekkoon rajulan min rijalillah موتا دماكو خول با ياغ وفي هاويه معرفته اداء السلام لا احد يستطيع ان يخاوم النور الذي يخرج من فمه ندخ لان هذا النور ينير صدور الرجال وهو يخرق قلوب الذين كفروا ولا بوك صدور الكفار الذين كفروا رساله نبوية جده الامام الذي زهر ci ci rabi al ashara lil hijra maanaam moom xóot xóotu xam-xamam moom sëriñ Ablaay ca la daan leeral lépp lu lëndëmoon lépp lu la mas a jaaxal ci ci nga xamante ni moom mooy Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam nee na xool ci sëriñ Ablaay mu ni koon xam-xamam boobu la doon leerale li nga xamante ni moom mooy la lëndëmoon ca gaaye mu ni nag amul kenn ku àttanoon lumière ba doon génn ca dënnam jamono bu daan di wax ndax lumière boobu doon na leeral xolu képp ku nga xamante ni bokkoon nga ci góor yàlla yi waaye doon na lakk dënnu képp ko nga xamante ni weddi woon nga yonent ak maamam boobu nga xamante ni moom mooy Seydina Limaamu feeñoon ci rasi rabiil ashara lil hijra feeñoon ci quatorzième siècle ci atum gàddaay kon ñu ngi koy ñaanal fa mu ne moom ak njabootam gépp ci mel ni que Baye Mor ñoom ñëpp leen di fàttali ak ñi nga xamee ni ñoo woon ci suñu biir ku mel ni Baye Moussa Laye ñu ngi koy ñaanal moom tamit fa mu ne yàlla na eggale ji ndawam ca ilayina kon eh, moom mooy eh, tawxiid nga xamee ni yàlla subhaanahu wa taala dafa doon wax ni xam la an taabuduni nee na na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaamu ndax képp ko nga xamante xamuloo ma day yow mënuloo ma jaamu mu mel ni xam naa Seydi Ibrahim dina ci ñëw ci kanam bu ko defee amel defal nu ci ay développement yu am solo bu ko defee ku nekk xam kan mooy ki nga xamante ni moom mooy sa borom ndax lu am solo la ci diine nit xam kan mooy yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi bi mu koy jàngale dafa nii an taabuda rabbaka ka annaka taraahu waaye fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak nee na nga jaamu yàlla ba mel ni que moom yow yaa ngi koy gis waaye boo njortee ni sax gisuloo ko nee na nga jàpp ni yàlla mi ngi teg bëtam ci sa kon lu am solo moo tax buñ ca tàbbee mu leeral nu ci moom Ibrahim bu egsee bu ko defee dinañ ci duggaat ci almuhaddam manjaay laay moom nga xamee ni ku nu ràññee la ci diine ji ci taxawaayam rawatina ca Dalifort nga xamante taxawal na fa daayira bu am solo nga xamee ni saa bu appel di bëgg ñëw rek dafay def ay manifestation ngir rek tasaare woote Seydina alayhi mu mel ni moom dinañu indil après ci li nga xamante ni moom mooy euh, lu ci mel ni que njàpp vacance bu ca mënee dugalit julli ci tënk bu ko defee mu defal nu ko ndax yàlla subhanahu wa taala aussi gannaaw boo ko xamee mënoo ko jaamu te selloo moo tax Seydi Mandiaye xam naa dinañ ko xaar ci ay leeral yu bare bari bu ko defee mu dimbali nu si ñun ñëpp ndax diine moom jàngale ak jàngale bu ko defee al muhaddam bambala yi moom tam du ku ñuy présenté ci diine ndax ku ko xam-xam ni taxawaayam rafet na lool ci biir ndakaaru waaye itam rafet na lool ci fi nga xamante ni moom mooy goxi Sénégal yi ndax fu si ne rek mu ngay taxawal ay daayira di taxawal ay daara ngir jàngal nit ñi seen diine ndax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la jàngale woon ki gën ci nit ñi moom mooy ki nga xamee ni moom moo jàng alquran waaye nag wa allamahu di ko xamle mu mel ni gis nga seen taxawaay lépp diine la ci lañ leen xame ci lañ leen ràññeewee nga xame ni moom dina ñëw indil nu nag dem bu am solo dal ndax itam dal dafa nekk loo xamante ni bu nekkul ci yow rek daanaka yow da ngay xaw a ab bàyyi ma waaw ndax yàlla subhaanahu wa dafa jël doomu aadama def ko muy kilifaam maanaam muy kilifab nature bi muy wax sax ca malaaka yi ne leen ini jaay ardi xalifa man dey dama bëgg def sama représentant ci kaw suuf mais nga gis ni malaaka yi sax ñoom danoo meloon ni ko am fiiraange moo tax ñu doon ko wax naan atajalu fiha man yufsidu fiha wa a dimaa wa nahnu nusabbihu bi xamdika wa nuhaddisu lak kon mu wa taala bi mu waxee ci malaayka yi ni ki dafa bëgg indi benn représentant sur gis nga malaaka yi danoo fiiroon nan ndax danga fay yóbbu ñoo xamante ni dañu yàq suuf si te pourtant ñun de ñu ngi lay ñu ngi lay jaamu di la di la di la sàbbal saa su ne mais yàlla ni leen xam naa lu ngeen xam ndax boobu gën ji mbindéef mu ci seen biir moo tax hal ata ala al insaan xiinun min ad dahri lam yakun shay'an maskuura yàlla nee toog na jamono ju yàgg moom nit nee nekkul woon ku ñuy tudd nekkoon ca monde xaybu di naviguer ci benn air boo xamante ni mën nañ ko tuddee nii mu ngi naviguer ci ci ci néant existé gu kon mu mel ni oustaz Bamba bu ñëwee nu indil ci sakina nga xamante ni importance boobu yàlla jox doomu aadama nu ci indil benn pàcc rek pour wax nu nit kooku naka la war a mel moo xam ci dig digganteem ak nit ñi la moo xam ci digganteem ak boroomam la kon ñu ngi koy xaar moom te mu tatagal nu ci loolu mu nekk loo xamante ni lu nuy rafetlu la waaye balaa ñu ñëw ci loolu ci tënk ndax am na euh, ki nga xamante ni moom oustaz ahmed ñëwagu ñoo si dinañu indil ci thème bu am solo bo xamante ni moom la ñuy tuddee rajan rajan buñ ko waxee moom mooy dellu si ndax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ni dafa dellu si gaay ni loolu manul ne مدخ الأستاذ عبد المنصور البحدادي دون وحنان خال المتكلمون المحققون من أصحابنا لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير بعد وفاته مني غور يالي دي نيوم خولون نان ني بي صلى الله عليه وسلم جوغينا في واي دونداتنا كناو بمفاتو moo tax mu doon wax moom démb naan ana akramu hinda rabbi min an yutrakani fi xabri aksara min salasati ayaam nee sama tedd nga day weesu na fa ma may génn àdduna ñu may dugal ci biir suuf ma di fa def lu ëpp ñetti fan moo tax ba mujjee géeme dinaa dal na fa ngor mawlud yoofin ba mu feeñee kani maay maa di yu bir fa kurba dal la mag mawlidi yoo fi ba mu feeñee tanamaay naf moo tax gis room bay dafa am lu mu wax dafa wax ci alquran ni awa man kaana maytan fa axyaynaahu waa ndax ki nga xamante ni dee na génn na àddina yàlla nee na ma dundalaat bi yemuma ca wa jaal naa lahu nuuran yamshi bihi fi naas ma defal ko benn lumière bu muy doxe ci biir nit ñi mu ni ka man masalahu fi zulumatin laysa bi xaarijin minha waa ndax kii yem naat ki nga xamante ni mi ngi ci lënd mu suuf te mënu faa jóg kooku kan la borom xam-xam yi nañu xoolaat jërëjëf la gaa yi naan man aw man kaana maytan mooy koo xamante ni amuloo xam-xam dañ lay considéré ku faat fa ahyaynahu bu la yàlla joxe xam-xam mooy dundalaat na la wa ja'alna lahu nuuran yamshi bi fi naas xam-xam boobu servir la lumière booy doxe ci biir nit ñu ni ko man masaluhu fi zulumaati ndax kooku yem naat ki nga xamante ni génnagul ci lëndëm googu ma ni yàlla waxul loolu ay arab lañu wax kon nag lijjanti ji kooku xëj na jóguma pour waxtaan Ahmed dina ñëw leeral nu ci à travers des yoo xamante ni moom mooy dëggal kon mu mel ni balaa ñuy nag tàbbi ci ñeenti waxtaankat yooyu dafa am ñeneeni ustaas yoo xamante ni ku ci ne rek mënoon naa taxawe bis bi ustaas Adama ngi nii toog ñu gën ko ràññee ci groupe bi waaye gën ko ràññee itam Cambérène te diine ji ndax man mii bokkoon naa ci ñaka daan bége mu daan toog di waxtaan ñu nekk ay xale yu ndaw di ko déglu kon nit la koo xamante ni am na cër ci diine ji ndax ndawam lépp ci diine la kon yàlla na nga teeri noonu la ñuy rogalaate aussi ci oustaz Daouda nga xamante ni moom tamit ku si ne gis na waxtaan yi muy def ci taarix ci groupe bi di jàngal nit ñi li nga xamante ni moom mooy comme koy rek manul xam démb manam ken manul defar sa tey te xamoo sa démb wax naa ko keroog nee subhanahu wa taala bi nga xamante ni labal na firawna sa baxru xalsuum ba mu ko boole yonent yàlla lan la def ba mu def firawna dafa taxaw wax ak boroomam foofa ni man day jub ki nga boroom bi nga xamante ni moom la waa bannu Israël yàlla ni ko déedéet laxatan saytu xab danga ma moyoon lu ko jiitu waaw ni ko nag fal yow mënu dajjika bi badanika li takkuuna li man xalfaka ayatan dinaa préserver sa corps bi ñu moomu fii la bàyyi la fi ngir nga servir exemple ci génération future bi nga xamante ni moom ba ku nar wax wax yi nga waxoon ni ana rabbukumul aala ni maay seen borom bu gisee fi ma jaar ak dina ni ah kii kat dinaa génn ci loolu ndax yàlla am na fu mu jaaroon nag ki nga xamante ni moom mooy Firawna moo tax nga gis ni euh, oustaz ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax yow tam gis rafet rafetlu lool li nga xamante ni moom ngay def di la ñaanal yàlla na yàlla yokk sa xam-xam yàlla na dimbali la leeral xolu bépp borom xam-xam boo nga xamante ni yaa ngi wax ci diine ji yàlla la yàlla dimbali may la tijjee may la fatxu may la fasaxatul kalaam ba lépp loo xamante ni mi ngi génn si sa dënn rek yàlla dugalaat ko ci xolog ñi nga ni moom julli waaw mu mel ni ñu am solo lan xam nga dama ko bëggoon a tëjee <laughs> waaw ñoom sikkarkat yi suñu biir nga xamante fan yi ñu ngi taxawal ay sopp koor sax ci biir groupe bi di bégal ndax yàlla subhanahu wa taala loolu nu digal waaye sayidna alimaam alayhi la doon wax nee na na ngeen bari lu ngeen di sikkar ndax soosu day fa innal amakina tushhidu lakum yawmal qiyama na ngeen xam ni yi ngeen toogoon di tudd yàlla nee na dañ leen di sax seede fa nga xamante ni moom mooy ëllëg kon bu nu keparam, ba ci keppaaram akay lay der jakar bu nu ba ci taxaw di tudd kon amnan nan ni ëllëg dinañ toog ca kanamam bokk ak moom di fa tuddaat wala bokk di fa santaat yàlla nga xamante ni moom mooy mujjanteelu waa àjjana moom mooy wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin